على أجمعين ربنا دائما الجبال مريد الرمي يجوك ففي حزنا إلى الأرض لولا الروح ذر على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا درجتنا ينن وبعد ذا أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب يدعو منذر الحزن على نبي وعليه أجمعين dañ ñëw Tivaouane ci ñaari casquette lañ fi ñëwee sax bu njëkk bi en tant que fidèle talibé mais aussi bi ki des en tant que présidente sociale formant Nous xam te rôle cibler les foyers religieux pour euh, faire une campagne de euh, consultation gratuite pour la meilleure prise en charge des pèlerins hmm. waaw ren en deuxième année Nous avons commencé à faire ci one, mais nous vous ngi un poste médical avancé ci buntu hôpital bi nga xam appuyer hôpital régional pour Mme Abdou Aziz appuyer médecins yi nekk là nous avons ak euh, cinq médecins et euh, 3 infirmiers donc généralité yi spécialisation et je veux dire donc cette année également euh, Mamadou Mamour Diallo moom lañ ñëw fii nii ci quartier de Mam Cheikh ci buntu këram ko parce que tout simplement c'est le parrain d'honneur de cette association depuis que a ko créé ba suis muy moom muy madame Binta Diallo Nous ñoo toujours ci Et dañu appuyer ak également suñu partenaires yi nga chaque année nous sommes ñuy donc ren nak Mamour ñaanoon ñuko parce que moom tamit fay recevoir ay gan yu bari yo xam te fu nek la ñuy joggé ci Sénégal ñeu di dal kërëm non seulement gan yoy dinañ bénéficier wu ci euh, consultation gratuite yi ndax commencé nañ depuis deux jours mais également tout le quartier euh, également dañ ci bénéficier wu parce que nous avons commencé premier jour nous avons dañ démarré un peu tardivement ay vers 20 h mais ba ba wacc touché 133 personnes yo xam ñeu nañ consulter quand ci consulter aussi dañ leen lay dañ la offrir garab yi euh, gratuitement parce que médecin yi ñoo lay prescrire garab après ñu tamit ñu ñu jox la garab yi euh, gratuitement. non non du tay rek lañ ko commencer. boy xol def nañ ko à Touba def nañ ko aussi ci à Louga Kër Thierno Bachir Tall euh, ñi ngi xaar également prochain pèlerinage bu Popenguine donc pour vous dire que dañoo cibler tous les foyers religieux mais également des personnes yi nga été euh, en association bëgg organiser une journée de consultation gratuite ñun également nous sommes là pour pour les appuyer. social Pharma nag euh, cette année moi, c'est une deuxième euh, année macha allah ñu à la bu baax ñu yàlla jàppale ba ñu fekkee waat ko ren et puis dans de meilleures conditions que yi ñu amoon daaw. يحل الجبال مريد الرمي يجوك فتي حزنا